à ceux qui m'ont précédé en direction de l'invité. Euh, c'est tout un honneur qu'il nous fait de partager ce, moment de partage et d'échange avec nous euh, relativement aux problématiques qui nous préoccupent tous et euh, qui se ruent tous vers le Sénégal. Euh, je voudrais en fait rebondir sur une question tu lui as posé et qu'il a semblé peut-être balayer d'un revers de la main en ironisant un peu à propos de la transition. Et je voudrais qu'il m'accorde un, un, petit instant que je puisse expliquer en fait de quoi ça retourne à mon entendement. Parce que cette transition-là, elle ne débouche pas ex nihilo. C'est-à-dire ça, ne sort pas comme ça de, de la tête de Jupiter, mais ça tient aussi par rapport à à une sorte, à une historique. les assises nationales où les forces vives de la nation se sont retrouvées la, les perspectives compte tenu que subit le depuis le tournant de décembre 1962. Il nous a, en tout cas, ce que ça vaut pour un militant de RND, je pense qu'il n'est pas besoin que je m'étale plus longuement parce que ce sont des gens qui ont vécu ça dans leur chair, euh, tant du point de vue militant, du point de vue politique, du point de vue de la carrière, tout court. Euh, et ça, ça crée une division, comme il l'a dit tout de suite, au sein de notre société. Et qui fait qu'on a une administration extravertie qui garde des usages coloniaux qui n'ont rien à voir avec la des d'endogénoisation de notre politique de développement. Et donc, n'étant pas de, de, tradition révolutionnaire, on se dit pays de la teranga, pays du dialogue. Donc, il va nécessairement falloir opérer une rupture radicale. Et ça va nuire à certains intérêts dans notre société et qui sont au cœur du contrat social sénégalais. Il s'agit des affairistes, du, du, du clergé et des, des, des, hauts fonctionnaires et des hommes politiques qui sont là, qui ont établi une sorte d'oligarchie qui se reproduit à l'aide du système. Et donc, il va falloir, avec eux, trouver un consensus pour que l'intérêt général, le bien commun, avoir un sens dans notre société. Et c'est pour ça que nous nous posons la problématique de la transition, transition qui a comme la participation citoyenne et la, la démarche Donc une sorte d'horizontalité qui nous sort de la verticalité rigide que nous avons connue depuis le pour ça que je dans le débat et essayer de d'avoir son avis là-dessus, comme c'est un expert, euh, la vie politique sénégalaise, ce serait intéressant d'entendre son Allô, monsieur Camara Allô, la régie Oui, monsieur Camara Allez-y, monsieur Camara. waaw jërëjëf euh, Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci sa question bi xam naa ne euh, wax nga dëgg li ma ko tontoo sànq dafa nekk tont bu gàtt boo gisee mu nekk tontu bu gàtt dama yaakaar ne euh, essentiel bi Sénégal même boo def transition il faut nga xam d'abord fi nga jëm fi nga jëm boo xam ne fii ñax dafay sax am nañ fi ay transition yu bare Sénégal waaw mais est-ce que tere na suñu ressources naturelles yi ñu jàpp ko di ko piller est-ce que tere na foncier bi ah ba léegi gis nga nu ñu koy doxalee est-ce que tere na ñuy joxe ay licence de pêche comme ni ñu koy joxee est-ce que tere na ñuy am ay campagne agricole yoo xam ne yi c'est catastrophique est-ce que tere na njàng mi sooxee est-ce que tere na santé bi sooxe terewu ko donc problème bi essentiel bi du ay affaire gouvernement du ay affaire transition problème bi mooy fan la ñu bëgg a jëmee Sénégal loolu la ñu war a waxtaanee et fi ñu war a jëmee Sénégal homme politique yépp ku ci nekk am nga ci sa gis-gis ku mhm. nekk da ngay dem campagne électorale nga ne sénégalais yi boo ma falee dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii ñu fal la mais buñ la falee yow yaa war a doxal bu fekkee da nga lajj population yi ñoo war a ne kii dafa lajj ñu jox keneen wala bu fekkee ne popul yow lajjuloo wala danga nga bëgg ku jàppale nga seet ñi ànd ak yow d'accord jàppale la ñu jàppale la loolu nag moom mooy principe waxuma ne. les forces politiques waruñu mun a dajee ñu mun a waxtaan mais lan la ñuy waxtaanee li ñu war a waxtaanee la ñu war a d'accord fan la ñu jëmee réew mi parce que mu leen boole ba pare kii bugg a xëcc dem boor bi kii xëcc dem boor bi man su ma ñëwee dugg ci benn benn benn wax ñun ñëpp ñu ànd ñu ne dañuy politique kii ne man ressources yi dama koy jël ah joxe ko nu ma neexee mu jox ma 10 pour cent doy ne ma. ma ne ko man ressources fan la ñu jëmale Sénégal pour améliorer situation sénégalaise. moo tax ma jël li li ab li président Abdou Diouf waxoon bi ñu ko waxee nañ def gouvernement de transition mu ne leen transition vers quoi suñu considéré nit ñi dañ leen élire régulièrement ñoom ñoo am pouvoir bu ñu bëggul instabilité du ñu fi nekk dina wéy kii na démissionné kii na bàyyi parce que laaj na mais bu amee il faut ñu am courage yu d' accord ne ñun ñoo seetaan ñun sénégalais yi ñoo seetaan surtout beaucoup de cadres surtout beaucoup de jeunes yoo xam ne yi dañ naan man politicien wu ma politiciens yi ñi lañu mel mais ñëpp yemuñu bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër donc fii Sénégal toll suñu responsabilité la ñun ñëpp ñu xam ne dañu war a taxaw pour changer ko léegi sénégalais bu ñu bëggee changer ko dañuy d'accord fan la ñu jëmale réew mi ak ci yan loxo lañ koy teg parce que pour man loolu la d'accord man duma d'accord ay discussion yoo xam ne yi dañuy yone woy nañu jiboo Sénégal benn bopp la kii di dee xiif kii di ba bajantu nga ne Sénégal benn bopp la du benn bopp nañu xool yoon bi ñu jël lan moo ci dëgg ñu ne bu ñu koy rectifier nii lañ koy rectifier ñi d'accord ànd ci ànd ci rectifier man loolu laa gis moo tax ma ne euh, ci soo déggee ni may waxee sax nga xam ne man bañuma waxtaan bañuma juboo bañuma def euh, def euh, def transition mais dañuy xam transition bi bu ñu koy def c'est vers quoi le temps ñuy am fi ñuy jëmale réew mi loolu mun naa ko d'accord boo tax man ci sama position ci loolu mooy eh, man gëwuma ne da ngay dem ci da ngay def politique pour am poste mais boo jëlee quatre cinq dix partis politiques nga dugal leen ñu ne nemm commencé liggéey est-ce que mën nañu liggéey dans le sens defal dañuy def ni ñëpp rek sol seen cravate seen costume ñu leen di ubbil ñu am ay garde corps am ay avantages mais mu non loolu c'est pas ça que nous voulons. alors monsieur Camara merci beaucoup. ñun dugguñu ci politique. waaw pour yeggali ci loolu. oui dugguñu ci politique pour suñu intérêt bopp dañu dugg suñu politique parce que dañu am ay schéma alternatif ay proposition yoo xam ne moom mooy transformer Sénégal ñun nag lu mu saf-saf kaani te njëriñu Sénégal nekk ci dañ koy koy wax lu mu saf-saf suukar nag muy wax wax bu neex te njëriñu Sénégal nekk ci duñ leen ko wax ñun li ñu gëm mooy Sénégal bu ñu définirul fi ñu ko jëmee ci gutt gi lay dugg te comme ni ma ko yàgg a waxee foofu lay daanelee ngelaw biy dugal xob ci pax génnewu ko ci te foofu la ñu toll aujourd'hui surtout bi Covid bi ñëwee ba daaneel suñu koom-koom kon nag sujet boo xam ne bii dañ koy caaxaanee dafa am dafa nekk lu am solo moo tax kontaan ci li ñëwaat ci sujet bi ma gën a leeral sama xalaat ci loolu jërëjëf. oui merci monsieur Camara. asalaamaaleykum Nourou Wane allo Nourou Wane allo Nourou Wane. oui Cheikh Sadou maa ngi lay ziara. monsieur Nourou wan ñu ngi lay ziar di la gërëm ci disponibilité bi nga am pour ñëw tey interagir ak monsieur Boubacar kamara alors ma bàyyi la nga wax ak moom régie indi leen ma Nourou Wane écran grand format à l'écran waaw waaw waaw cant ak ngërëm xam naa mbir mi xaw na guddi sax euh, dama ci xëy na barkeelu tuuti rek mhm. di ziar ak di nuyu seen gan gu tedd ki Euh, ndax yaakaar naa ni képp koo xamante ni bi mbiru doxalinu réew mi soxal na la ba nga fësal ko euh, gan gu tedd nga ala kulli xaal nit ku tedd nga mm-hmm. euh, ndax yéene moo moo njëkk moo njëkk jëf mm-hmm. donc de ce point de vue koy nuyu di ko sargal mm-hmm. li ma jot a fekkee nag ci waxtaan bi bëriwul la ma ci jàpp te mu yóbbu ma ci di ko laaj mbir mooy que ni Euh, moom am na diir goo xamante ni bi yaakaar naa def na ko ci nguur euh, ci position boo xamante ni bi itam position bu honorable la position boo xam ni jege na xëy na njiitu réew euh, ba mën a xëy na am noppam ngir mën cee saxal ay ay suggestion ak ay conseil ndax position stratégique bu toll nit man bu ma juumalee nit bu ca nekkee àla kulli da ngay jege da ngay jege da ngay jege la ñuy dogal fa ñuy dogale ma ko doon bëgg a laaj euh, ndax ca jamono yooyee euh, amoon na coup de France bu ñu ko mënee wax ci wolof euh, du sañ-sañ waaye est-ce que amoon na maanaam possibilité jege nguur jege kilifa yi réew mi ba mën ko di xelal yoon yi mu war a àbb pour mbir ñi di gën a dox ak ci di ko gën xelal ci loo xamante ni bii bu moom bu jiite woon réew mi noonu la koy doxalee ak ndax réew ak ndax njiitu réew mi mayoon na ko sañ-sañ boobu ci moom ce que li li li maanaam euh, laaj bi li ko wund mooy euh, dafa bëri tey ñoo xamante ni bii tabaarakallaahu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci kujje gi te ñu ci bëri ci ñoom nekkoon ci ay position de décision. Euh, ma bëgg a xam ndax il faut à la kulli àll nga toll ci station présidentielle pour mën a euh, impulser ay changements wala est position yoo mën a nekk ci biir nguur rek appareil d'État am na loo xamante ni bii mën nga ko impulser muy yéeg di yéeg ba doon loo xamante ni bii euh, dana dana dana indi soppeeku ci doxalinu réew mi jërëjëf. Nourou Wane ñu ngi lay gërëm di la sant. di fàttali ñu moom tamit sénégalais la rek euh, ndaw la bu nekk ci réew mi leneen ñoru ko lu dul Sénégal bokkul ci benn parti politique Nourou wan waa Petro-Tim ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa participation monsieur Camara vous avez la parole. Euh, jërëjëf Serigne nuru Wane sa question bi dafa am importance euh, souvent dañ ma koy laajee neneen. dañ ma naan yow yàgg nga occuper ay responsabilités pourquoi bi nga fa nekkee def loo li ngay wax nii euh, dafa am ñaari façon responsabilité ci état dafa am responsabilité politique ñooñu dañ leen élire wala ay homme politique nommé leen parce que dañuy am ay poste politique ñooñu ñoom ñooy am décision politique te ki ci jiitu mooy président de la république ñeneen ñëpp kenn amu ci décision politique fonctionnaire bu liggéey def concours at mi ñu former la dañ lay jox benn pàcc benn périmètre ne la nii ngay liggéeyee lii nga war a doxal recette nga war a am dañ la laaj recette nga indi recette temps ni ngay organiser pour def recette ñu ne la defaral ñu ne la dañ lay laaj nga lutter contre la fraude mu ngi nii nga appliquer réglementation yi nga war a am ak yeneen services yi nga faciliter commerce bi nga def nii nga def nii liggéey boobu liggéeyu technicien la man nag wax dëgg yàlla. bi may ñëw duwaan ku ñu wax Makhtar Diop moo ma proposé ñu nommé ma Makhtar Diop bi may proposé xamuma ko xamaanuma dafa ma dégg ci liggéey bi ma doon def mu ñëw waxtaan ak man nommé ma bi ma nekkee ak moom dama am coup de France parce que bi ñu waxtaanee dama ko wax sama gis-gis ci duwaan boobu xale bu tuuti la boo xale bu tuuti j'étais très jeunes pour un maa ngi doon doog a admis inspection d'état euh, ma génn dem ma ne ko man fii ma toll nii sawaruma si ñëw di jël direction douane mu ne ma d'accord mais terewul mu nome ma bi ma nomee dafa ma jox feu ma def sumay réforme réforme yooyu ma def bi mu fa jógee aussi un an après ministre yi ci tegu jàppale nañ ma ci ba benn jamono aussi am na moment mu am ay difficultés yu bare parce que nag man dama xaw a dama xaw a doy waar tuuti dafa am yoo xam ne yi bokkul ci sama yar par exemple tout ce qui corruption ay fraude ay dëng-dëng ànduma ci te ñoom ñëpp xam nañu donc dama doon gêné ñu bare ñaareel bi dama am benn façon bu may liggéeyee boo xam ne bii man résultat laa gëm gëmuma leneen bi ma demee ba ci biir nag commencé naa gêné mais bi ma gêné aussi am na ay guerre yu bare yu ma ci def mooy histoire bi xale bi doon wax sànq affaire bu bona enlevé jàpp nañ bi sax ay agent tëj leen mais nu mu mujjee ñu defal leen procès ne dara amul man mi sax dem nañ ba dugal ma ci naan ma woy du ñu mujjee ay non-lieu la parce que dañu ma doon jéem a xoxatal rek te man dama nekk koo xam ne kii wax dëgg yàlla niñ ma yaree xaw ma affaire yooyu mënuma yëngal donc parfois da ngay am ay jafe-jafe mais ci wàllu politique amuma woon benn pouvoir politique. lépp loo xam ne nag ci domaine douane la moom ci réforme yi ma waroon def su amee incidence politique wax naa ko autorité politique yi yenn saa yi ñu ànd ci yenn saa yi ànduñ ci mais dans l'ensemble vraiment permettre nañ ma ma def sumay réforme réforme yooyu moom mooy dox ba léegi douane système yi ñu fa organiser ci wàllu informatique système wu trade point gaynde mille yépp ak réforme ci euh, avantage u agent yi réforme yépp man maa ko fa def ñi ñi nga xam ne ñoo ñëw sama gannaaw aussi am na si ñu bare ñoo xam ne liggéey nañ ci ba nga xam ne douane actuellement nekk na corps boo xam ne bii bu solide la kon pour tontu sa question ñun poste bi ñu nekkoon du poste politique poste stratégique la dëgg la mais poste la boo xam ne bii compétence technique lañ la laaj laajuñu la sa avis ci wàllu politique loolu nag dafay nekk souvent poste yoo xam ne li ngay mën a def du bare fii ñu toll nag Sénégal bi fa jógee. dem naa ci yeneen post dem naa ci inspection nekk naa fi secteur général ministère bi nga xam ne Karim Wade moo ko yore woon mu ëmb secteur yu bare foofu aussi même position laa fa nekkoon parce que bi ma fay nekk IGE laa bu ñu détaché foofu foofu aussi amuma fa woon benn décision politique parce que décision stratégique technique laa fa am ñu liggéey fa def fa ay financement organiser fi ay tali defar aéroport yi defar ay centrale solaire def lépp kooku position technique la bokkul ak position politique léegi nag dafa changé bi ma demee ba gis ne position technique boobu fii mu toll bu fekkee ne loxo politique bi daf ci dugg te ni mu ci duggee baaxul il faut nga def combat politique bu fekkee da nga bëgg sa réew pour mu changer moo tax ma génne sama casquette boobu teg ko fële daal di démissionner inspection daal di dugg ci politique bi léegi nag li ma bëgg mooy am pouvoiru def sama xam-xam bi ma am ci wàllu technique ma appliqué ko ci wàllu politique bi ma taxawee aussi li gën a dal fonctionnaire yu bare mooy dañuy jaxase seen position bu ñu nekkee ci technique dañuy fexe ba dugganteeg politique yi ba nga xam ne dañ leen di def genre surga man loolu mosuma koo nangu mosuma nangu nga may jël dërëmu benn homme politique Sénégal un franc amul homme politique boo xam ne bii mos nga maa dundal wala nga jox ma sa dërëm parce que dama ko soxlaw ñaareel bi amul homme politique boo xam ne bii. am nga maxaama loo ma loo xam ne lii jaarul ci yoon loolu nag boo ko amee doo am jàmm yenn saa yi dafay métti moo tax ñun dañu gëm ni euh, compétence politique dañ ko war a séparer ak compétence technique moo tax ci réforme administration foofu laay daanelee bi may préconiser poste yi nga xam ne yi dafa am technique te nga xam ne dafa am sensibilité politique ñu def ko appel ak candidature nga xam ne ki ko gañe dafa am mérite ñu jox ko mission jox ko xaalis bu muy liggéeyee réew mi nga xam ne du am benn incidence ci wàllu politique donc man loolu laa gisee sa question bi seen une question importante fonctionnaire yu bare dañuy daanu ci piège boobu da ngay nekk nit mu nekk sa ministre wala sa chef nga foog ni da nga war a ànd ak moom mu naan la damay politique yi samedi utal ma xaalis fii dugal ma fii man kenn mosuma ko wax kenn amul fitu wax ma ko loolu nag bu fekkee da nga bëgg a nekk fonctionnaire nga respecter état du Sénégal bi nga xam ne moo la formé jox la fonction danga war a yem ci sa périmètre léegi nag yi yi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne bi léegi pour nga am poste yooyu sax il faut nga politique loolu mooy problème bu Sénégal voilà. Monsieur Boubacar Camara merci beaucoup Cheikh Anta Seck.